fa ci des bi ci des moo di kenn du sa bopp nee na kenn du weddi sa bopp daaw daaw fi teewee biñ fi teewee fii jëluma woon kaddu nee na jëlul woon kaddu de ma bàyyi lépp ci mu nee na dafa bàyyi woon lépp ci sëriñ lam tooro si doomu maam Abdoul Aziz si da lépp kàddoom ak yëpp moom la ko joxoon loolu lay defaat nag nee nag loolu nga xam ne moom la defoon daaw moom lay defaat. dama ku doon ubbil rek. nee na. dañ doon wut ku nu ubbil rek. ko doon ubbil. daf ko doon ubbil rek. waaye lépp ngi ci loxoom. waaye lépp mi ngi ci loxoom. di gërëm nag ñëpp ñu ngi gërëm mboolem ku fi teew moo xam kan la wala dëkk la yal na yàlla faj aajo yëpp jaayi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ki doon conférence dama ne. waxtaanam mënoon nañ ko bàyyi mu dem kenn bañ fi jël kàddu xam ngeen lu tax mag ñi dañ ñu fàggul lu rëy jële ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan bi nga xam ne moo ñu gindi kan la ko yàlla teg ci loxoom du sayyiduna muhammad yaa ayyuha rusul balligh ma unzila ilayka waaye yemul foofu mu ne ko sallallahu wa sallam wa in lam tafal ne ko bul mel ni rekk rek lamtooro mu toog yor micro di wax te la mu wax yépp bu génnee du ci jëfe dara maam Cheikh Ahmad Bamba santu ko njabootam mbokkam ba santu ko njabootam kon góor gi li mu ñu doon waxtaanal léegi ñépp a ngi naan ëskay ndax bu ñu génnee ëskay gooju dañ ko jëfe foofu la mbir mi de ka wax bàyyi fi bind dem bàyyi ñoo ko moom muy njëriñ nag mu ne yéen daal xam nga leen lu ma leen yéene udxuluha bi salaamin amin waaye loolu nag la koy maye mooy nga jëfe te jëfe seen santaane mooy jëfe yonent bi ndax ñoom seen lépp sayduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam lu rëy lii sama bàyyi daan na mu wax ne cheikh alhaaji abdou aziz fu yiw ne si demal fàggu ci ko dafa am mag ñu daje dem ci suñu baay Abdul Xaadar Mbàkki radiyallahu ne ko dañu bëggoon Cheikh Al Hadj sa mbokk ma rus na la te dañ ko bëgg a sakkanal bëgg mu noppalu ñu def délégation bu rëy daje magu Dakar yeeg ñëpp jubal Touba mu recevoir leen. ba ñu ñëwee toog ak moom ne ko daal dañ bëggoon comme Cheikh Al Hadj Abdaji daf la rus wax nañ dañu bëggoon nga wax ko mu noppalu. góor gi ne laa ilaha illallah kooku bu noppee àdduna bi tukki sëñ Abdou Khadr kon gis ngeen mag ñi noonu lañ ànde woon góor gi daan na ma wax ne si ñaan gi ma yëg ne suñu borom yàlla defal na ma ko bokk na ci ñaan yi ma yàlla nangul sama baay Cheikh Coro Mbàkke moom ma ko def ci man te boobu nekkaguma xalifa nekk ndaw xam nga lu mu ko wax ne ko inna farihna bil ityaani azizi lana abdal azizi fatal fityaani nan ko fiha zamanun chiplun gaynde bu ndaw nga def fi nga ne Abdou Aziz waaye yëkkoonu ba ëllëg dinañ xam yaay kan Abdou Aziz ñun de lépp lu ñu bëgg ci diine ji yow la ko yàlla teg ci loxo kon mag ñi noonu lañu ñu woon yàlla nañu yàlla saxal ci lii ah di seedal sëriñ Mbacke Dieng ni xamal ko ni mbooloo mi sëriñ si ak taalibe yi ak bokk jullit yi ñëpp am nañ ci moom ak cofeel ndax jëf ju tedd ji ndax lii jëf la joo xam ne yàlla moo ko moom ak yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax biñ ko fi sancee ak léegi lu mat ñaar fukki gone ak nangam mokkal ci ñaar fukki mokkal na ci yoon wi loolu ndam la ci diini ndam la ci lislaam bi waaye ndam la ci askan wii nga xam ne ci la la yàlla boole ndax sëriñ Mor ma ndaw jëng ay jaaruwaayam ku dégg histoire dégg nga ko nituk alxuraan la woon nituk sunna la woon koo xam ni jaamukat yàlla mag mag mag la woon ci réew mi ah te bu ñu seetantalee tuuti xam ne arab yi am nañu lu ñu wax fala xarwa an yaxsul fata xaswa walidihi nit su fekkee la nga xam ne ay baayam ak maamam ci lañ nekkoon mu dundalaat ko ba loola feeñaat loola du kiimaan ci moom waaye njàmbaar la ci moom ndax ku toppatoo li nga li nga war a toppatoo am na ki toppatoowul li mu war a toppatoo kon nag yàgg sa mbokk yi nga xam ni ñoom ngeen fi dëkkal muy alxaaji Bada Dieng ñoom ak waa dëkk bi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax kii gannaaw yàlla may buntam ci yoonu Serigne Touba maak samay rak kon nag lépp loo xam ne waaye defal na ko ko yàlla nga ko defal yonante bi nga ko defal waaye nun yi nga ko defal ndax sunu waajur lañ ko tuddee jox ko ko mu yar ko ñu fekke ak nekkam ci biir yar ba dara yàquwu ca lépp nekk siraatal mustaqim lépp nekk diini lépp nekk ak bi yàqu ci dara ànd ak muñ gu mat sëkk ak jub gu mat sëkk goo xam ni duñ ko wax ngir dara lillaahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kenn mësul gis ci moom nga topp ab tànkam gis ca lenn lu yàlla tere wala lu yonante bi tere ci diine wala ci ànd walla ci dëkk loola defe naa bu lii feeñee ci moom mu ànd ko ay bokkam di waa dëkk bi ak waa tund wi ak suñ mbokk yi ahlu diine yi loolu ndam la ci moom waaye mbégte la ci noonu ndax ku sañoon koo yar mu mel nii mu mel di def luy dundal diine te doo dox ab tànkam fekk ca lu ñuy ter lu ñu lu yàlla tere nit ki mën nay fab alalam di ko joxe ci diine waaye aw nam dana tax mu soof lool nit ki mën a fab alalam di ko def ci taw ci taalube waaye aw nam tax mu soof lool loolu lépp nag dara amu ci kon Serigne di Dieng yow mi nga xam ne yow la sa waajur wóolu batale la donga yi nekk ca Touba léeg mu génn ab diir bàyyi la ak donga yi du kiwoo fanaanoo àll demoo ci jàng demoo ci xew-xew tënku ci loolu na nga xam ne loolu defaloo ko kenn ku dul yàlla ak yonent bi di santit ki nga xam ne mooy njiital réew mi ndax yàgg nañoo toog fii di ñaan courant bi suñ borom tabaraka wa taala andi ko leer na sëriñ mii leer na bokk jullit ak seex sii fi toog ak kilifa yu baax yi andi nañ ko ñëw na loolu sant yàlla lañ ciy def waaye nag sant ki nga xam ne ci moom la ko yaara jàll muy président Macky Sall ak kilifa ya doon toppatoo loola ba àgg ci moom ak ña ko doon dox ñëpp ndax loo xam ne ndimbal la ci kuy jàmm yàlla ndimal la ci ku bëgg a dund lislaam ndax ya ca aju yëpp ku xam ku ne xam nga ko ah ndigalal sëriñ bi nag mooy li fi ñuy wax muy sëriñ Abdou Latif am na lu muy dénkoon wax ñu ko bu ñu àggee nañ gën a boole suñu bopp gën a tënku ci lislaam gën a tënk ci ak toolu bi gën a tënku ci lu baax ndax jéem lu baax moo waral lii ndax investissement yi nekk fii lenn lu ciy mayab dërëm amul lu ñuy dolli di ci fere moo am kon ki ko def yàlla rek tax mu di ko def ak yonent bi yàlla Muhammad sallallahu daara ji du daaray tarixa képp ku bëgg a jund ci lislaam bëgg a ci diine sa daara la boo fi indee sa doom danañ ko jàngal ba mu mokkal bàyyi ko ci pas-pasam mu dellu fa fay jubluwaayam loolu waxtu wone dañ koy leeral ndax loolu moo ko tax a jóg kon sëriñ Mbàkke Jëng mii ñu ngi ñaan mook bokkam yi mu fi fekki di Alaaji magam yi fi nekk ak doomi ndijaayam yeeg ñoom ñëpp yàlla may leen kartan doon leen xéewal ba lañ yéen ci lislaam mu mën a dox bu baax courant bi jàmbaar la ñëw lañ sant leen gërëm leen ci waaye soxla nañ ndolleen leen mooy defar ñu yoonu fii ngaay ba dikk bi gën a mën a yomb ndax fii ay investissement fii fa am defe naa baax na ci diine waaye baax na ci état ndax buñ nee diw de agressé néew na nga génn ko mu doomi daara buñ nee diw dafa weñale nit néew na nga topp ko muy doomi daara te loola ndaw ñi ku ne gis na seeni taxawaay ni mel ci jamono ñi ko naqar lu bari na média yaa ngi koy wane ñëpp koy gisandoo amul kenn ku mu ump ku mënta liir nit ñaa ngi koy dégg di la ko nettali ci xibaar yi dañoo rey diw dañoo dagg ab tànkam dañoo àgg ci diw te am juróom-ñetti at jëfin ñaaw yooyu yëpp di ay ay ay faaxis yoo xam ni yu ñaaw la ñaaw la loolu néew na doomi daara ju jàng alxuraanu karim ba mokkal ñu yar la nga di ko def defe naa loolu nag bu ngeen dimbalee waa diine dimbaleen ki nga xam ne ñoo jiite réew mi ñoom itam rafet na baax na ñu xam seeni taxawaay fii ci njaboot yi ak seeni doxalin gannaaw ba ko yàlla xamee ba noppi kon ki yor réew mi di Macky sàll ñu ngi ñaan mu dimbali ñu ci aw yoon woo xam ni dana ñëw fii ndax ñi fi nekk liñ man lépp def nañ ko te ñu ngi nas yeneen i pexe yi dolli ci li liñ nekkoon loo xam ne sëriñ mi waxtaane ne ko man ban fas ko te loola ma nga ci yàlla na ko yàlla àggale ci dolli fi travaux boo xam ni da koy génn ci alale boppam ngir mën a gën a servi ndox ba dongay gën a mën a jëfandiku loolu àggee na ma ko man mi nga xam ne may kilifaam ngeen ñaan mu àgg ci jàmm ak salaam loolu gën naa woon état ni moom itam war warteefam ci lii am war na ci am aw doxin woo xam ne wu bokkul ak wii mu yokk loxoom ci njaboot gi yokk loxoom ci population bi nga xam ne ñoo dëkk fii ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jot lu yëpp Cheikh Abdou Latif ak Cheikh Mountakha di ñaan sunu borom tabaraka wa taala ak sunu njaboot yi sunu mbokk yi sunu waajur yi dëkk Tiwaawan di sunu kilifa yi yàlla ñoom itam may leen wér yàggale xalifa ba ci seen kanam ak rakkam ak mboolem jullit yëpp ñoo ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp di sant sunu kilifa yi ñu àndal di waa kër Cheikh Issa Diène sëriñ Abdou Latif sëriñ Cheikh jenn mii ak sëriñ Bachir ñoom ñëpp ñu ngi nii sëriñ Naar sëriñ Sidi moom sëriñ Soyibu sëriñ Cheikh moom sëriñ Youssou njabooti sëriñ Mbàkke jenn sët yeeg ñëpp ñu ngi fii ñu kon sëriñ Bachir moom sëriñ Mbàkke Mariama mi ngi ni ak rakkam kon na ngeen xam ne jenn ku ñëwul ku ne ak mag moo la jàpp waaye ñoom ñëpp ñu mën na ñëw danañ ñëw te ànd ak sëriñ Mbàkke bis bi ba bis bi jeex wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.